Maître Massokhna Kane ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di sant nga nga nekkit euh, njiital SOS euh, consommateur way jëfandikoo du ñàkk dañuy yëg seen bopp ci li ñuy laam-laamee fan yii yëpp Sénégal muy ñàkkub kérosène loole nga xamante ne moom la ñuy utiliser ci ay avion ah, mu nekk li nga xamante ne tiital na lu bëri donte jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàll wi jàpp na ni kon ñàkk amul te kon quantité baa ngi fii finalement ñan nga jàpp ni war nañu gëm seen kàddu. waaw affaire kérosène boobu gàcce la bu ñu teg Sénégal. gàcce la gu ñu teg aéroportu Sénégal ak seeni autorité parce que aéroport bu day ni bii ñu fi tabax xam ne àddina bi yëpp dañuy wax ni ci Afrique en tout cas ci aéroport bi fi dàq la wala moo ci ñi fi dàq la mm-hmm. ñu bëgg am ambition wu avion yu bare di fi jaar bu ñu déggee ni Sénégal aéroport bu mag bii fi am amul amul kérosène dafa am ay manque de kérosène loolu dafay yàq réputation aéroport bi day yàq réputation Sénégal du dalal xelu ñi nga xam ñoo bëgg indi seen avion te loolu grave la alors bu fekkee ni euh, dañu wax ni ministre bi dafay wax ne que euh, loolu amul que c'est disponible mais démb dégg nañu directeur de l'aéroport dégg nañ ko mu wax ni que affaire bi c'est un problème bu fekkee dafa am société boo xam moom la ñu dénk affaire bi naka la ñuy dénkee société boo xam ne bi d'abord benn société ñu dénk ko fourniture euh, kérosène bi yëpp te loolu wóorul ensuite amul stock de sécurité yoo xam dañ naan kii stock bu weer la wala stock bu euh, ñaari semaine la wala yooyu yëpp c'est des problèmes extrêmement graves yoo xam ni dañu war a xam kan mooy responsable te ku ñu gis moom mooy responsable dañ ko war a sanctionner. Mm-hmm. parce que il y va de l'avenir de de, de cet aéroport là mënuñu rentabiliser avenir euh, euh, aéroport bu day nii amortir coût construction yi avec une réputation que aéroport bi day manquer de kérosène loolu c'est extrêmement grave. ñu gis ni yëf yi yemul rek ci kon aéroport ndaxte euh, ci wàllum napp gi tamit ñu ngi ñuy xamal euh, déjà ni am na ñàkkum carburant am bi ci am ndax loolu da nga jàpp ni dañ ko mën a rek euh, méngale maanaam lié ko ak li xew ci ñàkkum carburant bi ba ci kérosène. waaw defe naa ni wute na. parce que affaire essence wu gaal yi kooku jotewul ak dara kérosène mais. essence euh, su gaal bu ñàkkee aussi bu fekkee ñàkk na parce que aussi loolu il faut mu wóor. Mhm. parce que si des fois ay ay kii lay doon ay ay rumeur lay doon. Mhm. waaw rumeur rek ma malheureusement suñu yenn mbokk journalistes yi bu ñu gisee ay rumeur rek dañ ciy bind bu ko defee nit ñi dañuy euh, lire titre yooyu ñu bind. yoo xam ne sax souvent amul fondement. Mhm. donc loolu dafay am aussi te dafay tiital askan wi dafay jaaxal askan bu fekkee ni euh, petrole u gaal yi dafa manqué loolu lu garaaw la parce que kenn waru wax ni affaire Ukraine bi moo tax mënoon nañ wax ni njëg yi dafay changé dafa yokk ndax affaire Ukraine bi cours mondiaux yeeg yooyu loolu à mais dafa manqué loolu wax dëgg yàlla mënuñu ko accepter bu ñu xamee jën ni mu amee importance ci dundu Sénégalais loolu war nañ fexe ba loolu du fi am bu fekkee am na ay responsable nañu sanctionner responsable yooyu. nañ hmm. fi def en sorte que loolu bañ a amati. ñu gis ni kon si secteur napp googu déjà Sénégal fu mu toll ñu ngi wax ci ñàkku jën gi dafa cher léegi buñ ci eh, toftale li nga xamante moo jëm ci wàllu wàllub eh, carburant bi gaal yi di jëfandikoo xëy na yëf yi dina gën a tar seen wàllu xeex yéen ñi di taxaw ak ak yeleef way jëfandikoo ah, ban solo ngeen jox secteur napp gi. waa secteur napp bi Sénégal yëpp jox nañ ko gën Euh, autorités yi war nañ fexe ba euh, ñoom ñu mën a am jumtuwaay yi war moo xam euh, essence la wala yeneen yoo xam dañ ko soxla pour dem mën liggéey déjà ñoom seen liggéey dafa metti ndax gaal yu mag yi nga xam ne ñoo ñëw fii di napp suñ jën yi ñu koy ñoom ñu koy dénoncer di ko joytu tout le temps tax ba ñoom nañ daan am dootuñu ko am ci jën donc lañ daan am ci koom-koom duñ ko am sénégalais yi ñu am ni jën yombe woon yombatul noonu jën dafa gën a cher tout le temps jigéen ñi dañ koy wax bu ñu demee ci marché yi jën dafa gën a cher te ci loolu lay jógee parce que nappkat yi dootuñu napp jën yu bari parce que gisatuñu jën bu ñuy napp donc loolu aussi problème bu rëy rëy la pour Sénégal Sénégal yi yëpp donc ñun dañ koy mettre di ko dénoncer parce que pour le moment dénoncer rek lañ mën ñun mënuñu xeex kenn ndax armes yi nga xam ne moom la ñu loi jox pour ñu mën a xeex ak ñi nga xam ne ñoo yàq arme yooyu moo il pour ñu mën ko def muy action collective il faut ministère du commerce jox ñu agrément te six mois ngi nii ñu koy laaj agrément jox ñu agrément ñun nag bi ñu dem moom cour suprême mais dañuy wax borom réew mi nga xam ne moom moo wax ministre boobu nañu gaaw ci mesures yi ñuy wax pour prix yi pour commerce bi pour association de consommateurs yi mën a def seen liggéey président na wax ak ministre bi pour mu jox ñu agrément yi ñu war a jox Mm-hmm. te mu téye ko te ni mu ko téye jaaduwul. Mm-hmm. est-ce que jotul tamit ñu dooleel organe de contrôle yi fi nekk euh, ci kon yenn yaama neex yi ñuy gis ci marché bi. waaw organe de contrôle yi dañu leen war a dooleel parce que am na ci ñoo xam ne ñu ngi def seen liggéey ni mu waree bu ñu jëlee ku mel ARTP pour affaire télécommunication ARTP ñu ngi def liggéey bu mucc ay gis nañ ko ci terrain bi gis nañu. daan yi nga xam ne mi ngi koy teg ci ñi nga xam ne dañuy def jaaduwul gis nañ it commission de régulation secteur électricité te xam ne léegi yoon loi dafa yokk ay pouvoir ba mu nekk commission de régulation du secteur de l'énergie maanaam bu ñu énergie mooy électricité essence ak gaz ak yëpp donc pouvoir yooyu ñu leen jox dañuy ñaan décret bi nga xam ne mooy décret d'application bi Euh, décret boobu gaaw génn ndax ñu jox leen jumtuwaay yi war naam ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def ay euh, descente ci àll bi ànd ak association de consommateurs yi dem ci àll bi di xool électrification bi problème yi fa am yëpp ñu ngi koy def même tey jii commencé nañu département de Mbour région de Mbour euh, ànd ak ay association de de donc loolu dañuy ñaan état bi gaaw génn décret jox leen jumtuwaay yi war. pour que ñu mën a gën a liggéey loo xam ne day doon njëriñu askan mhm. euh, ñu gis ni tamit ñu ngi daanaka ci njobaxtalu weerub koor euh, kon xel yi dem ci korité euh, nemmeeku bi mooy senegal saa yu feet yu ni mel jibee rek ñu gis ni njëg yu bëri dafay daal di yokk ndax am mën nañ koo njortaat ren ji waaw ñun ñëpp ñu mhm. gouvernement bi jëlee ay dogal nañu wàññi njëgu ceeb njëgu diwlin ak suukar bi ñu delloo ko fa ne woon kenn appliqué wu ko commerçant yi dañoo taxaw def publiquement ni ñoom ñoo lànk duñ ko def tant que seeni stock jeexul stock yooyu kañ la jeex te gis nañ ci marché bi gis nañ ci boutique yi gis nañ fépp ci mbedd mi que ñoom respecté wuñu njëg yooyu état bi wax koñ sax boo fa duggee di nga gis ñetti boutique yoo xam ku nekk ay njëgam la te ministère du commerce contrôle bi mënu ko contrôler parce que kenn jox ko ay jumtuwaay yu mu mën a contrôler contrôle bu bu bu mucc ay amuñu nit ñu ko mat amuñu moyen yu ko mat te loolu fotu état bi la hmm. ñun association de consommateurs liñ ci mënul liggéey mën a attaquer euh, ñooñu di jalgati attaque loolu ñu leen mënoon attaquer devant les tribunaux xam ne loolu li ñuy wax action collective ñun mënuñu ko def parce que ministre du commerce dafa lank pour jox ñu euh, agrément yi nga xam ni moom la ñu war a jox laxas ci jaan ba kenn mënu ci jot donc loolu moo tax ñun fi mu nekk mënuñu liggéey mënuñu attaqué ñooñu pour teg leen ci yoon te loolu chef d'état daf ci war a wax parce que moom moo joxoon ndigal ni association de consommateurs yi nañ leen dooleel mesures yi nga xam ne moom la loi bi wax nañ ko teel a def te ministre bi taxaw defu ko hmm. te loolu ñun dañ koy naxarlu dañ koy dénoncer parce que daf ñuy tere ñu def suñu liggéey pour protéger askan wi. ci wàllub gu yaram maître ñu gis li xew ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ba ab soxna bi wana lor ñàkk ci bakkanam ñëpp jàpp ni kon euh, ñàkk taxaw la maanaam euh, bañ ko taxaw ba mu ñàkk bakkanam waaye teewul ba daani commencé jip ñu gis benn xeetub ndimbal jàppandal bi nga xamante ne ay fajkat yëngatu ci wàllu santé en ñu ngi koy def ndax loolu da nga jàpp ni yoon la. waaw syndicat yi am nañ droit jàppale seen i mbokk yoo xam ni ay daan dafa tegu ci seen kaw seen droit la loolu la ñuy wax réflexe euh, de solidarité loolu c'est normal waaye ak nañ koy defee parce que même bu ñu amee droit grève nañu grève wante d'abord bu ñu empêcher ñi nga xam ne bëgguñoo grève bëgg liggéey ñu liggéey war ñu leen tere liggéey loolu mooy benn ñaareel bi dañu war a xam ne bu ñu grévé kenn du leen fay solde loolu mooy contrepartie bi parce que ku liggéeyul kenn du la fay. Mhm. syndicat yi ñoo leen mën a wutal payoor ñoo leen a wutal indemnisation syndicat yi leen grève loo loolu moo xew ci àddina bi yëpp. Mhm. ba ciy profit di wax ci affaire enseignant yi enseignant yi ñu ngi leen di defal ay ponction yoo xam ni parce que dañu grève woon. Mhm. loolu lu normal la wante bu ñu leen di laaj ñu rattraper bu leen di laaj ñu def ay heures supplémentaires waratuñ leen ponctionner parce que kenn mënul boole nit. nga di ko ponctionner salaire am parce que dafa grève mhm. ba pare di ko laaj mu def heure supplémentaire pour rattraper programme loolu jaadu mhm. donc soit nañu arrêté ponction yi bu fekkee dañ leen di laaj ay heure supplémentaire wala ñu fay leen heure supplémentaire yi xam ne dana compenser xëy na la ñu doon grève mhm. mais en tout cas nañ leen rétablir ci seen i droit parce que euh, mënuñu leen di fonctionner ba pare di leen laaj supplémentaire loolu je tenais comme li ma wax ku grève kenn warula fay salaire waruloo itam empêché nit ñi ñu grève te da nga war a respecter préavis ba pare assurer li ñuy wax service minimum surtout ci santé bi santé bi amuñu droit grève noonu bañ a liggéey total non non non syndicat yi dañ leen war a wax ñu assurer ak délégué du personnel yi ñu assurer li ñuy wax service minimum maanaam service yi di dox il est vrai que bu fekkee fukki nit ñoo nekk ci benn service war a grève au moins ñaar yi wala ñetti yi war nañ fa des. Mhm. ñu ci dem bu leen neexee sax ñu def ko à tour de rôle mais service bi dafa war a continuer dox nit ñi dañu war a continuer ñu leen di faj analise bu ñu war a def ay analyse dañ leen koy defloo résultat dañ ko war di joxe loolu ñuy def ay rétention euh, euh, résultat données médicales ak yooyu yëpp amuñu droit def ko hmm. parce que loolu du grève loolu délit la moo non assistance à personne en danger ñoo yem te itam comme enquête yi wane na ni euh, dañu dafa am ay responsable mais responsable yi mu leen di teg ci yoon yoon lu leen teg bu boobaa nit ñi dañ ko war a nangu parce que nit doo ko du tooñ ba pare nga koy soutenir si tooñ boobu di wax naan deful dara bu fekkee y a des responsabilités avérées établies yoo xam ne am na ni ñooñu fa nekkoon dañu def ay fautes yu grave yoo xam ne nit loru na ci dañ leen war a sanctionner dañ leen war a sanctionner mais il faudrait que mu am preuve que ni dañu def ay fautes parce que non assistance à personne en danger am na donc loolu loolu am na homicide involontaire sax mën nañ ko qualifier mais na fekk mu nekk ay faits yu avéré yoo xam seen responsabilité c'est donc loolu tax enquête yi bi ñu ko defee bon ni ñu ko defee euh, am na enquête administrative am na enquête policière procureur aussi bu fekkee am na ñu placé sous mandat de dépôt am na fu ko wekk mhm. donc loolu moom procureur bu ñëwee devant le tribunal comme dañ leen war a acté en flagrant délit war nañu prouver que ñun SOS jëloon nañ sax avocat pour euh, la la famille la partie civile mm-hmm. mais dañuy xool bu fekkee am na avocat yu ko doy yoo xam ne ñu ngi défendre partie civile yi Louga bu boobaa ñun Euh, mën nañu toog bañ a yónnee wala bu ko matee aussi ñu yónnee avocat. Euh, ci sa mbubu kon avocat ba tey nga bokk sax ci ñuy layal Ousmane Sonko ci coowala maak euh, aji Sarr ñu gis ni fan yii yëpp dafa mel ni am na lu ci bees lu mooy ñaar yi muy kon soxna si ak borom salon bi lu ñu janoo gis nañu ay xeetu audio ba ci sax vidéo yi nga xamante ne mu ngay feeñ ci réseau sociaux yi ndax loolu daf leen di gën a dooleel tey ci seen taxawaay yéen. Euh, opinion bi gis nañu li xew ñun itam gis nañ ko ñu nag duñu duñu duñu coow ci ci ci duñu ci àll bi hmm. ñun dañuy xaar fa ñu war a taxaw danañ fa taxaw bu mat parce que non seulement population yi ñu ngi gis que ni lii coup monté la woon ay histoire la woon pour liquider ay adversaires politiques loolu moo fi nekk loolu la ñëpp gëm léegi looloo feeñ ci mbedd mi looloo feeñ ci média yi nag bu ñu taxawee devant le juge xam nañu li ñuy def li ñuy préparé ñu koy préparer li ñu li ñuy def mais du ñu wax ci mbedd mi euh, du ñu tëb di dal aussi di def ay vidéo ak yooyu yëpp dañ ko def. Hmm. waaw parce que ñun xam nañ ni nous avons la vérité de notre coté hmm. moo tax duñ ci wax wax ju bare. ñu laal li ñuy ñaan mooy li ñaan mooy. Hmm. lii ñoom seen intérêt la ñu arrêté ko. ak nuñ ko mënti arrêté te dama yaakaar ni ki waroon arrêté kii bi. euh, siffler la fin de la récréation mooy chef de l'État parce que yëg na li ay ñoñam def yëg na ko au départ xëy na affaire bi concerné wu ko woon yëgu ko woon comme li ñuy wax buur ayul daga ay mhm. xëy na ñoom ñoo monté woon affaire boobu pour jàppale ko à leur façon pour liquider un adversaire politique yàq daram et tout ça mais ba mu ko yëgee ba léegi te wóor na ma am na ci enquête yoo xam ni ay service am def nañ ko te leer na ci boppam li xew. Mhm. te dañ koy ñaan bu fekkee bëgg na réew mi jàmm am fi bu fekkee bëgg na vraiment dëgg jib na arrêté lii c'est sa responsabilité moom mooy borom kër gi kër gi bu dalee moom moo ko dalal man liñ koy wax mooy lii scandale bu rëy la boo xam ne bi daf ko war a arrêté parce que fu mu mën a jëm ci ñoom ak li mu leen mën a yàqal bare na. voilà ñu gis tamit borom xam-xam ci wàllub yoon ñenn ñi jàpp ni li ñu gis temps yëpp muy xeetub audio loolu yëpp amul lu muy eh, peser ci li nga xamante ne mooy atte gi ndax loolu jàpp nga ko. waaw loolu seen wax la bu la neexee ñu wax lu la neex mais ñun dañu gëm ni wax yooyu euh, euh, waxu dof la rek. parce que euh, loo xam ne lii ñëpp ci àddina bi yëpp loolu dafa am. ku jàng droit xam nga ni preuve électronique yeeg ay keex yooyu yëpp jàpp nañ ci nit ñu bari jugé nañ ci ay nit ñu bari ci àddina beeg fépp. Mm-hmm. donc loolu même Sénégal gi am na fi donc loolu ku mu neex na nga wax lu la neex parce que dëkk bi moo mel noonu Sénégal mooy dëkk boo xam lu neex waay wax lu neex waaye def te dara lu ci fekk. Mm-hmm. loolu moo fi am malheureusement te loolu dafa war a deñ te loolu dirigeant yi rek ñoo ko fi mën dindi. yaay euh, maître euh, Massokhna Kane euh, nga jiite SOS consommateur nekkit avocat ñu ngi lay gërëm bu baax maître. maa ngi lay gërëm di la